subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim uh, mbokki téléspectateur samsu TV mbokki internet yi no ngi len di nuyu bu baax di len siara di len balu ak te di len bal di ñaan yalla ñu bo le jéggal no ngi jital ci nuyu bi bay Serigne tiene Ba bay Serigne Hassan sek di ñaanal yalla yalla yagal ko ci kanamu njabot gi di nuyu imam ratif Serigne cheikh Amadou sek chef de village Serigne Alassane ñana sek ak uh, wa tiene Ba yépp uh, su ko rek mbokki xamna ñi ngi ci ben jotay bo xamanteni bi Euh, bor lay fay mën naa ni ndax waxtaan wi ñu fas yéene seq ak euh, jibri lu sekk moom Serigne Souleymane Seck boroom xaas waxtaan la woo xamante ni bi dafoon nañ ko waaye am lu ci laxasu ba lépp mu jul ñëw te mu nekkoon waxtaan woo xamante ni bi amoon na solo solo soo xamante ni bi jàpp nañ ñi foog ñu reprendre ko euh, pour mbokk ñuy seetaan man ci bénéficier wu waaye balaay boobu dañoo toog ak kenn koo xamante ni bi yàlla dafa def mu fekkee jotaay bi te yaakaar naa ni mën na wax si ki ñu fas yéene dalal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 Daara Idrissa Gaye boo demoon boo mënoon présenté waaw man Omar Deme ñëpp xam na fii ci ba may xarit sëñ Souleymane nag parce que buntu Thiénaba it ci sëñ Souley la jaare ba tey li ma yàlla may Thiénaba ak ñi ma fi xam yëpp ba ci Baye Cheikh ba ci njabootu Baye Cheikh ñëpp moo ngi ko jaar ci loxo Souley sëñ Souleymane sekk bon Baye ba dikkee sëñ A Seck ñëpp samay xarit lañu kër gi la laa won doon jaale ci su su ma gis oto muy sama doom muy ku baax nak mom carrière am moo ko défé ties ci dara Idrissa gay mu fa jangé ba pare mu jangé jangi wa ndax xam-xam du doy ndax buñ la né kan moy sa wajur seigne souleyman sek kan moy wajur seigne souleyman sek seigne Jibi sek fa la yem ci walu ndeyam. kan mooy sa maam Baye Kang nga xam ne kooku ñëpp xam nañ nu mel ak jinne yi te mu jur waajuram bu jigéen kon kooku xam nga bu demee ba ne damay faj ay jinde dama laxas damay damay damay coordonné ak ay jinde nit ñu war nañ kàggam ndax maamam lu ne la yàlla defal ci jinde kooku amul amul lu ci nit di werante euh, euh, doguma la de waaye waxtaan wi da toll fu am solo te itam yaakaar naa ni ngi si man a wax pour nit ñi mën koo dégg dëgg-dëgg mën na am sax moom euh, du ko ci fekk tey bëri na loo koy laaj moom tey euh, am na loo xam ne du si bëgg dugg waaye ni ma la déggee nii euh, man nga ñu si gën a baaxee bëri na ñoo xam ne boo nee leen damay faj jinne ñu ne ah kii est-ce que nangam est-ce ah, xam nga yàlla moo ne wala kat karam naa bani adam di mhm. yàlla yor di yàlla yor ñun la ko may. Mhm. ñun ñoo ko moom daal. Mhm. moom bu koy fajee war na ko faj da koo doon. koo fekk ci kër maamam mu jël ko. su demee ci kër maamam bu góor bàjji bi moo nga fa xam nga cere bu moom kenn du wax xam-xam macha allah man dama naw seen maam bu mu demee xëy jiyaat Cheikh Omar Fouti dem jiyaat moom mu dem jiyaat te lu nekk ak tubaab bi xam nga macha allah mu jaxasoo ak Cheikh Omar fu wóor muy man Omar yi ñoom xam-xam dafay nekk cene ba tey lislaam biñ fi doon atte depuis maam ja ba tey moom lañ fi atte doo fi gis lenn lu dul lu tegu ci yoonu siraatal mustaqim man kees laa dëkk c'est di Cheikh Omar Foutiou la yi muy dugg ci Bandiagara dans les phrases de Bandiagara say fiwu sama maam la ko bi muy jóge fii di dem Sokoto jaar Nigéria jëm ci Ousmane Dem Fodio Ousmane Dem Fodio mooy Ousmane Dem Fodia Touba moo indi Ousmane Diop Fodio man koo koy saa maam Cheikh Omar Fouti doomam la njëkk a jël comme soxna xasinatu mais kii lépp luñ la wax ci xam-xam bu ci nit werante daal da koo donn ci wàllu baayam donn ko ci wàllu ndeyam waaw xale la nag ñun dañ koy ñaanal yàlla yàlla yeggale ndawam ndax encore moom mooy ci wàllu maam waaw wàllu beneen wàll boo xam ne bokkul ak waaw te loolu fa la ko fekk allah xam lu ma la te xam nga keroog yàlla na yàlla yërëm suñu waajur bu mu génnee àddina mhm. dama toog ci benn tama néeg laa toog di seetaan télé mhm. ma gis ñu invité ko mhm. ma kontaan xam nga sëñ Souley moom bu doomam génnee télé di développé xam-xam da ngay bëgg képp ku ma xam muy nit ku baax keroog dama laa woo man la seetaanal doomu sëñ Souley am na ñu bari dañ ko seetaan nee na macha allah ndax xam-xam la fa wax zahir bu wér dafa boore zahir bi boore baatin bi comme nag loolu la fekk moom it loolu la mën a loolu la mën a doxal yàlla def da nag ñoom seen baay tabax na juba def na daara doomam yëpp alxuraan lañ def soo xoolee taawam ñoom ñëpp ba ci Babacar sëñ Ahmed Ibrahima sëñ Sulay dafa teg njabootam ci yoonu siraatal mustaqim baaji bi nag moom lu ñuy wax alwaladu sirru abihi baayam la ko tudde kon boo xam nga ni loo ko tudde da ñaan da ngay doon sa am na loo xam ne da nga koy doon ci moom xale bu baax la xale bu am xam-xam la xale bu nangoo ku nanguñu jur la waaw man naa dama koy ñaanal yàlla yàlla eggale ndawam yàlla defal ko jàmm daal bàyyam nag sama xarit la ba tey su ba amee buntu cere ba papaam moo tax papaam amul fu ñu àndul man baayam Sidi Maxtaar Kunta Idrissa Gaye Serigne Woussa Diegane Serigne Tako Mbacké Nasir Dieng ñun yàlla rek a ñu ñor dañu ànd baayam bàyyam nag moo Sidi Maxtaar ñuy suñu magu daara mom mo ngi ni ci lu muy daw ay projet dara ak jakka ak juma ci lay daw limuy am yep ci lako bëgg duggal aussi dal limuy wut wutul pour dara neena papa Mbat lu wut dama bëgg def ay juma def ay dara ni ma fekk sama mam mo don ko ca na juma ñaari mam yep def nañ juma kon bomin mom nee na fa la bëgg jaar waaw loolu la muy muy xale baxna man duma waxantu dama bok ci kër Serigne. xam luy wàllu sëriñ waaw di di di di xam réew bi nag bu baax nag amul kilifa bu nekk Sénégal booy tudd Omar Deme mun a xam ko am na des fois nit nit damay wax rek euh, bu ma ne yow nii dama naan soo bëggee xam tapé internet te bind seen Omar Deme man laqatuwuma aw ma sens interdit fenn fu ma neex laa jaar kenn du ma daje nit ci mbedd mu ne ma kaay yorel naa la bor te ñëpp seede nañ ma ni képp lu ñu boole ci lu ñu boole ci Sénégal képp ñu fi daje man maa leen boole man damay jox ci médiation loolu la ma ñëpp xamee ba ci wàllu politique bi ma nekk nga xam ne yàllaa ma ko nattoo fu lëj-lëj am man maay dem di jëtti ko sëriñ boo xam ne la ndaw la boo xam ne macha allah nee naa la ma tëj sëñ sulay mooy sa bàyyi dippe la baayam ñu ne Ablaye Kane Diagne booy sa maam mais kooku nu la neex ngay def ah waaw ni la neex ngay def waaw yàlla may na ko macha allah te man xam naa ne am na lu yàlla def ci moom ndax bi yàlla wax war a kala karam naa bani aadama da ko dañ koo boole ñun ñëpp di ñun lu ñu di yàlla yor ñun ñoo ko moom yàlla xoolal yàlla bëggul magasin bëggul oto bu rafet bëggul dara dafa ne li lii ma am yéen a ko moom mu jox leen ko te yàlla def it mu kii ko fii ci cene ba mu installé ko fii yor na ay projet nag yoo xam ne fu ne ko lijjanti di ko xale bu baax la yàlla na ko yàlla jàpp loolu la am rek li ma koy ñaanal di ñaan aussi seen télé bi yàlla na ko yàlla Shamsu TV macha allah ñëw naa fi ànd ak Mor Gueye sopp na bi am benn conférence bi fi amoon keroog ñu may fi ay terrain doomu bàyyi ma dikkee mbiir naa fi daal xam naa fi bu baax cene ba xam naa ko bu baax yàlla na fi yàlla def jàmm defal ko jàmm defal xale yëpp nag jàmm njabootu Baye Cheikh njabootu xalifa bi Baye Assane Abdou Ñëng ñoom Birane Seck man ba baña naa man daal cene ba moom man yàllaa ma nattoo cene ba Baye Cheikh loolu la ma doon wax naan yow cene ba moom loo fi bëggul fekk ne fekk dalaa ñor mais loo fi bëgg yàlla na ko def yàlla boole ma it ak njabootam muy taam seen muudu ak seen góor ak seen njaga ñoom ñëpp samay xarit lañu xam nga lu ma ñoo sëñ Cheikh wa man daal taalibe bàyyi kër kër bàyyi man am na ñu ma romb kenn ba sax dañ may xam fekk man miinu ma leen damay ruus ñu nu ma sëñ Omar man ne yaa na ngeen def mais loolu yëpp bu amee yàlla ak sëñ Suley la ñu ñëw it njabootam yaatal ma njaboot sëñ Suley nag ñëpp daara rek ñoom ñëpp daara lañ jaar yal na yàlla def jàmm lii laa am li ma ci doon sànni. waaw mbokk yi kon su ko defee rek eh, ni ngeen déggee introduction bi noonu ci Serigne Oumar Dème eh, jotaay bi eh, jotaay la boo xamante ni bi dañ ko enregistré woon mooy émission bu am solo bu ñu defoon ak Serigne Jibril Seck Serigne Jibril Seck bu Serigne Souleymane Seck boroom xaas Serigne Jibril Serigne Souleymane Seck. Sëriñ Jibrilu sekk mi mu ko tudd duppee moom mooy woy juram Sëriñ Jibrilu Seck moom maam Tafsir ma dikkee maam Tafsir ma dikkee maam Amari bu ko defee rek euh, ñi ñiy seetaan gën a mën a xam ni surtout Serigne Thiénaba maam Ahmadou Ndack Seck la moom la ñu seqoon ak benn jotaay boo xamante ne bu am solo la waxtaan woo xamante ne bi dafa aju si wàllu euh, benn ci euh, pàccam si ay liggéeyam muy faj loo xamante ne bi bokk na ci li ci gën a liñ ci gën a ràññee ci li muy faj mooy wàllu jinne buñ nee jinne nag yaakaar naa ni ku dégg loolu rek di nga taxaw seetaan élément bi dina la intéressé ndax am na lu ko ci yàlla may bu ko defee rek euh, dañ koy dékk suñu micro euh, mu ñëwal ñu ci wàllu paj moom euh, cosaan li fan la ak jaar-jaar beeg yëpp incha allah. ok jërëjëf Hadj Mar ñu ngi lay fay nuyoo di la jaajëfal bu baax a baax a baax ci seet gi ñu seet si di am contentement ci dalal gi ñu la dalal fii mm-hmm. ci Thiénaba télé bi di suñu télé Samsu TV ku ko xam-xam ni télé la bo xam ni ci euh activité yi xadara bi rek lay dox ma sha allah ngay couvrir jotaay yi nga xam ni da fay xew ci keur cheikhou tianaba tabarak allah na bi li benen facette la sax bo xam ni xëy ñi xam télé bi buñ ko gisee dañ xam ni facette bu bes la bo xam ni ñu ngi koy waxtane te jamono laaj ko lol ndax bari gu mu bari ci jamono bari gu mu bari ci dëkk bi bari gu mu bari ngir di sonal euh jaamu yàlla yi yàlla yi tabarakallahu yor xam-xam ni wa ma utitu min ilmin illa qalilan euh xam-xam bi nga xam ni def nako ci doomu adama yi Euh, lu tuut la fa yàlla mm-hmm. li mu réservé moo ëpp mm-hmm. waaye dafay bari ci ñun mm-hmm. ñu mu ko jox tabarakallahu ndax euh, ceslaayul xam-xam euh, ci faj ci ceslaayul xam-xam ci fajum tubaab ceslaayul xam-xam ci fajum olof waaye ci ceslaayul xam-xam yu mel ne que léemu mocc jat yu mel noonu ak mel noonu euh, su ko defee kon dafay nekk ay pàcc yu wuute euh, mooy waral muy bari ci doomu aadama euh, di nga wax di gis ni doomu aadama ni sëriñ diw ak a bari xam-xam te tiw tax te yàlla dane lu néew laa leen ci jox lu néew laa leen ci jox waaye dafay fekk ni Euh, jàngoro ji wàcc ci kaw euh, doomu aadama bi mu lompoñ lool jaaxle bu demee seeti moroomu doomu aadamaam mu sippil ko sànni fale day daal ni euh, sëriñ diw day ak bari xam-xam fekk lu tuut sax la am as néew lu tuut tuut loolu lu tuuti lu tuuti loolu nag as néew ci xam-xam soosu waaw ci lañ ci la ñu yàlla compal ñu ciy jaamu yàlla Euh, ndax bariwaan na euh, nit ñi di jóge fu nekk euh, di fi ñëw ngir ay jàngoro yu nekk ci ñoom mu nekk loo xam ne nag yàgg nañ ci di ci yëngu waaye boo gisee li tax mu siiw jamono moo toll foo xam ni téléphone portable yi bari daanaka ak ak wàllu média ni mu ni mu ni mu avancé léegi xeyna moko siwal ba ngeen jot ci duñu ci lacc waye yag nañ ko def dañuy gën di nek tout tank waaye yàgg nañ di yëngu ci fajj yu bare bare bare bare insha allah allah bàyyi gi bi bu ko defé rek euh, boo ñu soon doon dikkaatal ci yagana ak yow mhm. euh, lo doon la mhm. wala dafa am lo ci doon am lo xamanteni bi da nga ko jàng mhm. loolu mooy laaj bi ah, ñu ngi jaajeufal señu Omar dem mi nga xamni mom suñu wëllëre jur la mhm. comme ni mu ko waxee tudd na suñu wayjur doom mhm. euh, ñëwoon di jaale si Pape Mor Gueye mhm. Pape Mor Gueye ñëpp xam ko di nabien bu mag ak ñi nga xam ne ñooy taxawu gàmmu gi ca penc ma di jàng Ibnu Wahib soxnaam génn àddina ñu koy jàll waa réew mi yëpp di ko gën a jàll mu ñëwoon jaale si ko agsi fi yam ci mbir mi kàddu yi mu wax rek noonu la man defoon naa ni sax xamul suñu maam sëriñ Ablaye Diagne Kang mm-hmm. euh, démb rek ñuy toog ci jataay mm-hmm. suñu wayjur bu jigéen ñëwoon fi démb ci dimanche yi. Mm-hmm. ci ñuy kulle daara ji. dinañ ñëw baaji bi. di ci waxtaan. loolu moom dinañ ci ñëw. waaw di wax rek ah. di ci di ci waxtaan di waxtaane góor gi way wayjuram. bu Musaana. comme moom day say day sàmm. Musaana dem ci dara yi jëndi te yorul xaalis bu ñëwee ci góor gi. ni ko day dama soxla som sangam mm-hmm. goor gi daal di génne xa poos yi ni ko juróomi dërëm da nga fekk ma yor ko muy sama capital waaw wax lolou sama mam bi ko jur suñu ablay Diagne mm-hmm. neena mu ni ko demal nga tok nga degluma touti rek mm-hmm. neena na mu jël sesam tok gisul ben gan dug mu jek jek mu ne ko naaru wolof la koy woy naaru wolof kay mu ñew mu daal di somba muy xaalis bu tak bu bes tak jox ko mu ne ko ah bàyyi baaru yow liñ nane da nga am ay jinne deug la nee na nuusu koo nangu mu ne ko ah demal rek naar wolof daal di ree suñu maam Ablaye Diagne mm-hmm. fa la ñu ñun bi ñu avant ñuy ferum soow mm-hmm. la ñu nekk ci ay loxoom mm-hmm. moo ñu yar fa laa dale baax foofu euh, bu ñu musaan xëy fa yoroon ay naari góor ay fas yu bari ci wanag wi bokk nañ ci ñi nga xam ne léegi-léegi dañuy boo yabal ñu dem bu suqi fas yi sangi wëggi leen yooyu di ndongal daara def ci kii bi mais bu ñu ñëwee dañuy fekk ñu litt génne fas yi ak séq fas yi seen laas yi seen danqooñ yi ak seen laas yu weex yi génn ci biti mu ñuy wax ni jinne yi ñoo nekkoon ci fas yi di leen litt di leen sonal ba fas yi dañuy mujj sax seen rangooñ yi di génn ndax fitnaal bu leen di fitnaal ni jinne yi dañoo saay saay waay euh, am na loo xam ne sax duñ ko mën a wax ci télé waaye ah, nañ ci teg suñu bët ñun foofa ca moom ah, sëriñ Ablaye Diagne eh, bi jur suñu yaay ah, maa ngi fàttaliku may gën a nekk tut tànk damaa yàggoon a bind di xaatimantu ci suuf ak di bindantu benn bis ma toog di xaatim mu tiim ma te gisuma ko wax ndaw la ma pare mu daal di ree ni ma ah bàyyi ji bi yow sa sañ samay wooye bàyyi faas yow la ngay xaatim nii sa xaatim yi moom doy na waar di eh, booba la ma tàmma commencé jàngal yu baree bari ci wàllu yooyu eh, bi may dem daara sa Gay Cees fekk na mbir yooyu ma ci ma yàgg koo bëgg dafa nekk don ci man lu ma yàgg bëgg eh, sëñ Omar dem nu mu ko waxee sëriñ Souleymane Seck borom xaas dem ba koy dàkkante la borom xaas waaye waaye way juróom bàyyi jibrilu sekk mhm. xam ni e, ñëpp fekke nañ ko fii mu rocc xobi garab yi mu nekk xaalis mhm. teg baraada ci loxoom mu bax e, wax ay kéemtaan yu baree baree baree bare yoo xam ne buñ ko doon lim duñ fi jóge mhm. e, tabaarakallaahu kon lenn li doon rek la mën a doon waaye li ci desit nag gëstu la gëstu ndax boo gisee ñi nga xam ni jigéen ñi nga xam ni rab bi leen du dugg di soppi seen dund ñuy faral di am ay metiti bopp faral di seen xol yi di tàng ñuy énervé kenn du leen merlo wala seen jur bu jigéen bi leen jur duñ du leen duñ duñ ko déggal waaye duñu ko jublu gis ko ak gis seeni butit lañu yemale loolu rab moo koy def bi ci des mooy léeg-léegi ñuy dund waaye du ñu bëgg a ak kenn dañuy bëgg rek di beru walla ñuy am jafe-jafe ci jaamu yàlla wala ñuy am jafe ci seen wàllu baax wala ñuy am jafe-jafe ci seen wàllu ngoro ak seen wàllu sëy ak seen wàllu wërsëg ak seen wàllu wérgi yaram wala léegi léegi sax xataa mu leen di xiirtal ci di leen manipuler di leen defloo yu bon Euh, bu ñu ñëwee ci ñun euh, liñ leen di defal ñu koy suuroo sunguf la ay xeeti garab la yoo xam ne moom jinne du ko ronu du fa féexloo du ci yéeg du ko tiim du fa nelawe du fa togge du fa dëkk ndax rek ñu mewu ko yooyu la ñuy jaxase def ko sunguf loolu nag dañ koo gës dañ koo gës bu ci des nag mooy secret yi nga xam ni ah, ah, alxuraan la tey seytaane moom bëgg ko wala jinne ju bon mënu koo dégg ndax daf koy lakk te mu nekk ci biir alxuraan dañ koo gëstu lañuy jëfandikoo di leen ci di di leen ci faj tey loolu nag bi ko nit ñi xamee ñun sax xëy na yàgg na yàggul comme ni ma la ko waxee rek téléphone yeeg presse bi filme yi génne ko waaye wàllu lasraar euh, gëstu nañ ci bu baax a baax a baax a baax ba xam naka lañuy ñuy faja aaju nit ki ci aajo yu baree baree baree bëri ci ajo yi nga xam ni nit ñi deen ko wax gën di sàkku ci ab sëriñ eh, ndax dañuy wax ni loo dugg neen rek génn ci neen sëriñ Mar. Euh, Baye Djibi question bi ci toftalaat mooy pour ni Baye Djibi ni sëtu Serigne Thiénaba ma Amady Ndak Seck te ku xam Thiénaba aussi tam xam leen ci maanaam euh, maanaam yu bari euh, duñ ci bëgg di dugg wala ba dañuy dem ba buñ ci gisee ku ci dugg sax yaakaar naa ni du ñàkk. du ñàkk muy jot yenn appel yi wala yenn gisin yi wala nangam ndax bàjj bi loolu naka la koy dundee ci biir canal ndax euh, du ci faral di am jafe-jafe hmm. euh, ci ci wàllu dundee loolu ci biir canal ndax mhm. euh, dinaa ci dégg ay wax mhm. waaye re rek la may def mhm. xam nga comme ni nga ko waxee rek cene ba moom bu ñu gisee lu bees loolu faw mu am coow waaye buñ ko miis buñ ko miisee wala ñu miin ko eh, coow la dafa lay daal di yem dafa am loo xam ne nag dafa ànd ak coow mënul ñàkk tey dëkku sëriñ tabaarakalla la tabaarakalla tabaarakalla mu kenn mënta wax lépp eh, eh, maa ngi koy fàttaliku maa ngi koy fàttaliku Euh, commencé euh, di médiatiser di di médiatiser jaaro Shamsul Xamar yi ma doon defar euh, ñu koy gis ci internet bi am na ñu doon wax sama ay xarit du ñu wax ak man directement. <laughs> même ma ci dama ci damay question bi ci laay ñëw rek. am na ñu ci ñu ci doon envoyé samay xarit xarit ay audio. Uh-huh. moo koy déggaat. Uh-huh. maanaam waxaale waxaale ak seen waa ji yi muy def cene ba xamu ko dëkk bi xamu ko nangam mhm. mais mujj gi bijoutier bi ma demoon di di di may defaral jaaro yi <laughs> ma fay daje gaa yi <laughs> euh, euh, xam nga jaaro mhm. mag ñu njëkk ñi mhm. da nga daan gis xajmaar maar yor kër gu mag def la ñeenti soxna te du am benn métier ndekkeem añ day des hmm? waaw jaaro yooyu lañ daan takk rek ne ci kër gi bayil la ñuy def bu buñ bay bu noor bi ñëwee ñu toog ci kër gi te dara du manqué mu nekk xeeti jaaro yoo xam ne am na ñoo xam ne seen loxo dañ koy salbo seen biir seen biir dañ koy dañ koy yàq lu ñu am duy fekkente dara du ca toog mun ñoo jaay lu jar dañ dañ ci def bayre dañ def ku tukki bëgg ay kayit yu bari bari la rek buñ ci def shamsu shamsul qamar xaatim shamsu ak qamar jant ak weer seen kawe ak seeni kirama kiraama mënon ñen cey diklu lu yaatu waxti du ko maye nek ci nek ñaari façon la ba ñett xana bo xamni ni bi dama koy def mais def ci kawru tubab xamna mom kawru tubab gi dina la jaaxal ndax di nga xalaat ni tubaab waaye boo nañ ci inshallah allah euh, bi ci dess moy mhm. wa premier vidéo bi ñëk Euh, ñu indil ma benn xale bu góor bu ne premier la maatam la ko jinne dugge mhm. muy xiiru xiiru bu raglu di yuuxu mhm. ñu andil ma ko mhm. jour bi ma koy faj sama gàllaaji bopp yi ma doon takk mu nëbbu laa jël wax ko sama baat euh, xam naa biñ ma filmee euh, mu tas ci dëkk bi coow li bari woon na lool sama wayjur lañ ko njëkk a Euh, man naa tudd tur sax ki ko njëkk a envoyé sama papa sax ki ko njëkk a sama papa ni ko gisal li bàyyi ji bi def wax a wax a wax a ba ma gisee damaa encouragé xam ni nit ñi dañu xaw a doy waar dañu xaw a lëndëm mais man maa nekk nit koo xam ni euh, lépp lu ma xool ba ba dugg ci ba koy def duma ci diglu kenn man daal euh, naa xam ni li may def xaraamul ma nekk ca bo ma nekk ca incha Euh, vidéo bi mu génnee coow li bari na bari bari goo xam ni ragal naa ni sene ba gii suma fi def loo xam ni xadara bi e, laaju ko wala tarixa bi wala charia bi te chariatu naa maa xadara bu naa duma ma jaahil euh, ma woo ba ma ñëw doon ñu am fayda yi ful lay woo ma ba ma ñëw ñu wax ak man lu naa ci ay fii ci dëkk bi nit ñoo xam toog nañ ci bërëb naan bañ koy nas fekk nañ ko moom lañ doon waxal mais loolu intéressé wu ma euh, maa ngi ci door a wax faalewu ma loolu man parce que euh, Serigne Assane Seck ki muy toog ndeysaan euh, avant mi nekk xalif général nekk Gossas gis vidéo yi jeg man ci penc mi eh, ma mun ma ah waa gis naa sa vidéo yi man ko waaw mu ma ah gàcce la ci doomi soxna day ab sëriñ nit jinne sadd ko wala jaan màtt ko ñu indi ko nee na ngay xiin xiin yi dugg ko génn naan ti ngeen ko yóbbu ci sëriñ si ma ne ko ah man del ma ma xam ne ko loolu laa xam de moo tax incha rabbuna allahu maa ngi ci fas yéenee jaamu yàlla Euh, alxuraan lañuy ñuy faje hmm? wax dëgg yàlla tabaarakallaahu tax daal amul leen loo xam ni ñu ngi koy mu ngi ñu ciy déranger eh, ci wax yi nit ñi moom da leen di bàyyi ñuy wax yow ngay jëf bu yàggee nañu xam ni yaa ngi jëf hmm. dañuy ñëwaat ci jaaro bi euh, mm-hmm. comme li ma la waxoon rek borom euh, la boros la si waaye dinañ ci soxla lu gën a yaatu. Mm-hmm. wax nañu si ay ay ay ay ay fànn la ay jaaro yu bokkul la. Mm-hmm. boo doon détaillé jaaro bu nekk. Euh, lan lañ ko tëggee. ak yan njariñ ñoo ci nekk ci jaaro bi. waaw jaaro bi benn bi xa samsul xamar bi. comme ni ma ko waxee rek am na koo xam ni lu mu yor ci loxoom du toog du fekkante bu doon jaay dafay lamb. dina am nañ ko defal mu am xabul nit ñu jublu ko. bayre bi nga xamni day am kawru tuba bi nak euh baxna ci lool ci ko xamni dafa bëgg am wala da fay sàkku lo xamni da koy salaf ci ñam koy sàkku dafa lek ñak ci loxoy nit ñu war ko signé wala ñu war ko embauché wala ñu war ko defal ay kayit surtout mudu mudu yi wa loolu mom jaara bi am kawaru tubaab daf ci daf ci daf ci daf ci bax xam nga tuba lu yàlla sàkk tubaab ci boor sëkk alé lay ñun ma wa kawru tuba gi mom tubaab euh, kaw tubaab sobe la man leen xanaa tubaab du tuub dugg ci lislaam ñaata tubaab a tuub dugg ci lislaam kon xam nañu ni kayen kawar lañ ciy def incha allah. Uh-huh. Euh, bu ko defee euh, nañ yow en tant que sëtu Serigne Thiénaba Mamadou Ndack Seck di borom xam-xam. Hmm? di ku yàlla dénk xam-xam. Hmm? boo ñu doon dikkaatal ci jullit. Hmm? maanaam ban jaaru war a takk. benn. jaaro bi nan la war a bu ko defee rek pour pour laaj yi déglu gën a gën comprendre maanaam lan la ko lislaam may ci jaaro bu mu war a nan lay toll ak jaaro bi nan la war mel. xam nga takk jaaro moom dagan na. bind ci turu yàlla ak turu yonent bi dagan na li xaraam mooy nga dugg moom ci toilette. te it charia jaara bi mu la lim la nga takk ci xaalis. dafay war a tolloo ak ci galu galu gal ci galu Euh, mooy comme jaaro xaqiqa yi ñuy takk mm-hmm. te it secret bi ñuy def ci jaaro yi euh, xaatim bu ndaw lay doon mm-hmm. comme noonu rek lay toll mm-hmm. euh, kon jaaro moom dafa dafa dagan takk ko dafa am nag posé buñ la ci may pour nga takk ko mooy comme jaaro yi xëy yi ñuy takk loolu lañ ko xayma ba mu toll noonu takk lam moo xaraam takk chaîne yooyu moo xaraam yaakaar naa ni euh, côté boobu leer na. Mhm. dañuy dikkaat rek ba tey ci wàllu faj bi. Mhm. Euh, boo ñu doon dikkaatal sa jaar-jaar ci faj. Mhm. Euh, boo ñu doon dikkal ci ñi nga xamante ni faj nga leen. da wóor na ñi yàlla dimbali na la ci say loxo lañu la ñu wéree. te wax dëgg yàlla seen i mbokk wala seen i kilifa ñàkkoon nañu yaakaar ci moom ndax seen feebar fu muy yegg ci wàllu jinn bu fekkee am na kenn wala ñaar wala ñett ñoo xamante ni bii jàpp nga ni kii moom wax dëgg yàlla bi mu dikkee. yàlla dimbalee ma ci boo wax dëgg yàlla fi nga toog da ngay da mën na bëri waaye moo ci doon dikkal ñett rek. Ah, bari ëpp na bari na bari na bari na. Mhm. xëy na tey ndeysaan. Mhm. soxna amiñaŋ Ñang bi nga xam ne eh, jamono bi nga xam ne fii ci biir ba Seck. Mhm. comme eh, bi ma fi eh, demee ba gaar. kër amiñaŋ Ñang di fa faje soxna amiñaŋ bu toogoon fii. xam nga du yomb sax nit ki toog di di di di wax mm-hmm. def naa def naa nangam dafay yomb waaye ñi doon fekkee seede yi ñoo waroon nañ ko fekke mm-hmm. mais du benn du ñaar du ñett bari na bari na mm-hmm. koo xam ni tàqalikoon nag sagom lool sonn lool ci dund gu xat ñëw ci ñun yàlla suturaal ñu ci mbaaxam ñu tàqali ko ak looloo ko duggoon sonal ko lool lool keroog ngan gi fii yaakaar naa ni yaa ngi fi woon mhm. bari woon nañu fi teewoon mhm. bi même yaakaar naa ni bi eh, bari woon nañu toogoon fii sama kanam mhm. nga defoon ni ci ngan gi la bokk dañoo ñëwoon rendez-vous loolu moo leen daloon bi ñu añee ba pare lañ leen jox seen rendez-vous yaay leen ñu dem ñooñu bañ leen di indi dañ leen a jàppoo jàppoo woon waaye bi ñuy ñëw ñoo indi seen bopp walla laata ñu fi jógee xemiliku nañ ba xam fi bi ñuy ñëwaat ñoo seen bopp du ci du jeex du jeex du jeex du jeex mhm. na ñoo xam ne seen cër lay jàpp mhm. am ñoo xam da leen di teer sare sax wax mhm. yàlla suturaal ñu ñu ñuy suturaal yàlla suturaal nañu ci mbaaxam ba léegi ñu ngi dellu di wax am ñoo xam ne ñu ngi dellu dox seen activité tabaarakallahu macha allah bàyyi bi ku ko soxla woon maanaam rendez maanaam fan lay fajee dafa am euh, foo xamante ni bii fa la nekk di fajee ko pour buñ ko soxla fekk foofu waaw man lay léeg-léeg naa nekk Dakar parcelle unité treize mu nekkee Dakar mu nekkee Canaba mhm. bu dee kuy ñaan la fii ci kër gi nga may fekk ma waaye mhm. eh, bu dee kuy faju wàllu ay ki jinne moom xajul fii mhm. <laughs> coow li day bari moom dañuy dem ci sànce incha allah daara ja wala Canaba gaara fa faje incha allah léegi kii euh, euh, faju rab wala jinne wala beneen bi moom moo koy xam su ñëw wala su dikkee koy xam dafay bari mu dal leen ñi dañu di daaneel yéen dañu di dikkal ñii seen i kiiwaay jure yi seetlu ci am na nekk ci ñoom dañuy dem ci ay sëriñ di ko faj mu mm-hmm. yéen tane ak ñëwaat ak daaneel ak kiyaat mm-hmm. ba dañuy xam ne da leen a daal mm-hmm. dañuy ñëw ci man am na ñoo xam ne moom dañ koy njort am ñoo xam ne leen di seetal feneen wax leen ko waaw bu ñu dikkee incha allah am na waxtaan wu ñuy seq man ak yow li ma lay laaj nga ma ciy tontu yu lay arrivé bu ko buñ ca àggee ba mat juróom ba juróom-ñaar dinaa xam ne lii rab la ci lay sukkandiku xam ne lu ma commencé incha allah jëflante yow sa waajur bu baax a baax a baax waxtaan nañu ci eh, maa ngi fàttaliku bi vidéo yi génnee ma takk téere yeeg yooyu noonu ci téere baat yi sama téere yi euh, mu ngi naan ma xam nga sëriñ dañuy dañuy defee ni boo defee loolu rek sëriñ waru koo def sëriñ comme sëriñ bu bokk ci Ceneba bokk Tiwaawan bokk Tuubaa moom am na loo xam ne bu koy def waaw war a sañ sa ba jekk toog bind xalima gi findi nee na koo koy ñaanal mais ki ngay faj te li nga koy faj jinne moo ko dugg rab dafa saay saay bari xam-xam mën a gudd fan téere yi da koy def ngir aar sa bopp ngir aar sa bopp mais waxtaan nañ ci loolu euh, waxtaan woo xam ni déggoo nañu ci bu baax a baax a baax te it moom xam na xam na am na loo xam ne laa xar mu dolli ñu ay conseillers dolli ñu lu baree baree bari mm-hmm. defal nii mm-hmm. nii moo gën nii moo gën a rafet nii moo gën a mm-hmm. kilifa we nii moo gën a nangam waxtaan nañ ci incha allah waaw. Euh, nee nga daan bi nga ko njëkk bi nga bi mu génnee bëri na ñoo xamante ni bii am nañ ci beneen gis-gis si wàllu ceneb am na ñoo xam ne mën na am euh, wax nañoo yow direct am na ñoo xam ne nañ feneen pour euh, ni bàyyi ji bi lii ak lii. ndax loolu yaa ngi koy dund ba léegi maanaam. lii ngay faj muy wàllu rab mhm. ndax ñi a dëkkal mhm. bokk ak ñoom sëriñ Thierno Mame Amary Ndack Seck mhm. dañ amoon ci gis-gis bu bokkul la sa gis-gis dem ndax ba léegi yaa ngi koy am ba tey non kenn mu see wax ak man mu see wax ak man xam nga nit ñi moom fi euh, mën nañoo toog ci sa ginnaaw rek la wax am na ñoo xam ne nag yàlla dina leen euh, suturaal ñu xam-xàmmee dañuy xam ni yàlla mën naa maye lu ne ñu wax lu rafet wax lu baax nangu am na ñoo xam ne nag dañuy toog safaan ba la ñuy wax mm-hmm. waaye man xam nga ni ma ni may ni ma ni ma li may bàyyi xel mooy mm-hmm. euh, mm-hmm. ni may waxe ni may ni may waxee ni ñuy waxe ni ñuy waxee muy agsi ci man muy agsi ba ci man ma koy dégg man it damay jàpp ni ma waxee ci nit noonu lay demee ba ci moom mu dégg ko damay damay damay góorgóorlu man lu may wax ci nit rek lu baax laay ji ma wax ci nit ki loo xam ne bu ko déggee du ma xeeb wala du ma su ko defee nag kenn jàkkaarloo ci wax man kenn daal laa xam ni eh, am na ñu jaaroon ci moom di expliquer ay détails Serigne Adama Seck Serigne Baye Serigne Talla Xaar waaye kàddu gi moom leen rek la woon dañ leen waaye nag Serigne fiir rek waaye ñun ñëpp ko rab moom ñun ñëpp koy faj ñuy weexal xëy na eh, fa eh, méthodes yi ak facettes yi moo bokkul loolu moom dara niwu ci ba pare nag encouragé ma ci bu baax encouragé ma ci bu baax parce que xam moom xam na ma bu baax xam na ni man du def yoo xam ne amul solo. duñ ko dañ ma ciy kii. Mhm. bu ñu toogee di la laaj ngay tontu euh, dañuy bëgg képp ku ñuy seetaan rek euh, laaj yu ñuy laaj mu gis si boppam ba lu nekkoon ci xelam te mën na am dafa ñàkk comprendre dafa ñàkkoon comprendre mu comprendre dafa réere woon mbir mu mu mu leer ci moom. Mhm. ba tey rek buñ dikkaatee ci laaj. Mhm. li nay bokk ci li ñuy laaj ku ni canaba ni allahu akbar allahu akbar ni sellal. Euh, bàyyi ji ndax faj bi muy faj. mi ngi ci bàyyi uh, mhm. man su may faj uh, alxuraan lay jàng ba mu jeex. Mhm. maa Amary Ndaak Seck amul lu dul mhm. uh, magam bu ñuy wax maam Abdoulaye Seck. maam Baye moo ko jàngal alxuraan mu tari ko. magam jàngal ko magam jàngal ko ulumu charia ñu Abdoulaye mu doon am kaang. boo xoolee Mahoun ak Seck yi takk sëy yi jullee néew néew tudd doom yëpp mm-hmm. tabaarakalla alxuraan rek mm-hmm. euh, bi mu jihaatee ba ñëw samp cene ba mm-hmm. euh, aqaama manaaratan quraaniyan li taalim wa tarbiya lamp alxuraan la fi samp daara la njëkk ubbi fa mu daan jàngalee ci kajoor néew nañ guy gu mag la musaana jàngal ndongo yi ba ñu wàcc dina ko wër lu mat ñeenti yoon ndomba nga xam ne kon euh, borom alxuraan la woon. Mhm. te Ceenaba amuñu lu dul alxuraan. Mhm. Ceenaba bu njëkk sax alxuraan la ñuy gàmmoo. Mhm. Euh, euh, sellal gi. ragal naa ne moo tax sax ñu mën koo faj yow sa jëmm nga sellal sa jëmm. waaye li ngay wax sell muy alxuraan. ginnaaw secret yi xam-xam secret yi nga xam ne yàlla def na ko ci garab yi ñu gëstu ko. di ko boole ak moom. am na maa ngi may faj benn jigéen boo xam ni. suma benn xaritu policier fii ci cees mhm. moo ko mujj sax takk parce que moom koo gisoon yii fi sonal ko bañ ko déclaré ko ni ko benn soxna mu ngi ci bërëb sàngam toog fa mhm. bi mu demee jël ko seetlu ni yooyu moo nekk ci moom ñu boole ko ak man mu ñëw mhm. euh, bi ma koy faj li ko léeg-léeg yi li leen mooy wax ak yow daf ni ma day euh, euh, lenn la may sens yow mi nga xam ni yaa ma bëgg a tàqaleeg jigéen ji ndax dama koo bëgg maa ngi ko waaw kay maa ngi ko duggee maa ngi ko duggee Thiès ci rond-point Ngent jour boobu bu fàttalikoo mu rob bu mel nangam la sol jàngi woon mu ma euh, femme bi dafa naroon a am wërsëg la waroon doon ma gàllankoor ko ñu ma man nag famille jinne laa boo xam ne ñu ngi dëkk France waaw famille jinne la boo xam ne ñu ngi dëkk France mais Sénégal la laa féete man euh, maa koy yàqal daana ko nag sëriñ bu ko sëriñ sëriñ rey naa sëriñ yu bari rey naa leen sëriñ su bari da nga di baax mun ma yow mënulu ma la dara ndax da ngaa da damaa ñëw fekk sa lépp di se lépp sell lépp di leer rawatina dëkk bii nag sama bët yaa ngi lakk ndax leer gu leer gi bari gum fi bari leer gi bari gum fi bari dégg nga wax bi bu baax a baax a baax waaw leer gi dafa bari ci dëkk bi ba mu ngi lakk sama bët yi moo tax mëna lu ma la dara kon du ma def lu ñu négocier ma tuub toog te bàyyi ko soxna soosu mu ngi sëy ba ci ak borom këram waa ji mujj na ko takk ba mu nekk soxna mu ngi ci jàmm incha allah yooyu moom amul ci muskila incha yaakaar naa ni euh, ñiy déglu. Hmm. Euh, ku si nekk rek euh, di nga ci am beneen beneen bind bu beex sax boo xamante ne bii mën na am lu leer woon si leer na ci yow. wàññi hmm. bi barke démb bi ngay kuulee fële sa daara ji nekk si côté dànk jullikaay. Hmm. dañu gis ay témoignages foofu yoo xamante ne bii la taxoon Shamsu TV ñëw fa dañuy ñëwoon rek ànd ak yow ci liggéey bi waaye gis nañ fa ay témoignages yoo xamante ni bii ña ko def lu ñu dund la lu ñu yëg. Hmm. muy yenn ci maçon yoo xamante ni bii dañoo nekkoon foofu ci sànc ba di liggéey. Hmm. waaye am lu leen ci sànc ci ci sànc bi. Hmm. lu mel ni ay ay jinne loolu bu fekkoon mën mën loo yaakaar ni moom la. waaw normal xam nga fa laay faje parce que dafa defaroon benn saal ak benn néeg fa laay faje ñi nga xam ne seen cas dafa garaaw. di nga des ñoom ñetti waxtu ñeent ba juróomi waxtu. léeg-léeg da ngay sonn bàyyi ñu dem utal leen rendez-vous. li nga leen jot te defal bu ñu demee mu tane bu ñu ñëwaatee ñëwaat. mbir mi jeex ci ñoom dafa am ñoo xam ne li dafay dëgër bopp c'est normal fa lay faje te léeg-léeg da nga leen di jekku dañuy tuub ñu fiy des la ñuy doon xam nga dafa bari ay farce laa ko mën a tuddee gis nga am na bari na bi ñu naan jinne dañoo dugg ci école yi xale yi daanu crise crise uñu maanaam ay jinne yu doomi jinne yu ndaw yi ñoo lay fàdd di la coqutaan ngay tëb di dal duur sa bopp di yuuxu ba pare nag sa sonn nga tëdd jële ci tiitaange dañoo bari ay kaf yooyu noonu waaw damaa toog ba yàgg rek ñu maçon yi woo ma am nañu daanu nañu kepp am nañu dagg deret génn am nañu nangam ci sànc bi nangam mhm. ma xam ni ñoom la rek mhm. ma daw bi ma demee nag comme ni ñu ko waxee rek xam naa li li ko doon kii ma daal di def affaire yi su ko defee mhm. bi ñu ko defee ci la daal di ci am jàmm mën a liggéey ñoom nag demoon nañ baragal ñëw ni ma moom boo ñëwul def fa dara rek bi ndax kii nañu <laughs> lu xoromu mais bañu bañ fa demee incha allah lañ daal di def wax ak ñoom def yi ñuy def incha allah ñu daal di àggale liggéey ba démb yàlla def nañu kuule ko ba mu àgg ak ci jàmm incha allah. waaw léegi kon kër googu xamante ni bii daara la nga war hmm. ay mbooloo di fa ñëw hmm. ndax nit ña fay ñëw mënuñu mënuñu fa dund wala ñoom noonu loolu bëgg ba ma après ko mën la bi ñu ma wooyee rek laa lijjanti wax naa ak ñoom xam nga ñoom mën nañu mën nañu mën nañoo mën mën nañoo tuxu mën nañoo wax nga wax ak ñoom ñu réglé ah. waaw <laughs> ndeysaan ndeysaan beneen bi beneen bi témoignage la boo xamante ni bii man mi ko fekkee man frappé na ma mhm. euh, ndax euh, kàddu moom euh, am na kàddu yoo xam ne soo ko déggee rek sa xel day sa xol day nangu sa xel day nangu. Hmm. am na kàddu yoo xam soo ko déggee di nga dute am na kàddu yoo xam ne soo ko déggee da ngay gëstu dem ba ci biir. Hmm. nga gis loola gëmloo wala nga gis loola weddiloo. Hmm. Uh, ba ñuy def coulage bi foofu. ci kàddu yi. Uh, sa waajur wu jigéen. def na fa témoignage boo xamante bi bii. ña fa teewoon ñëpp xam nañ ni kii lu mu génn lu muy lu muy yëg ci xolam la. Mhm. mu wax Baye Jibi ci jaar-jaaram mhm. maanaam li nga xamante ni bii yàlla baaxee na ko buy faj ci wàllu jinne mhm. euh, li nga xamante ni bii doon na ko ci wàllu maamam. li nga xamante ni bii mooy way juróom euh, ci côté way juróom wu jigéen. ak li nga xamante ni bii gëstu la te yàlla may ko. maanaam témoignage boobu bi euh, ban yëg ci yëg. ay jàpp dafa sama yaay moomu dama cee meroon doon ma ko tere ci doon ma ko teree doon ko teree wóorul nangam nangam très très. Mhm. jékki-jékki un mu woo ma ni ma sa benn nijaay kii nag sa nijaay la. Mhm. moom yooyu da koo sonal sonal njabootam. Mhm. waaw bu ñëwee na nga ko jàppale. ñëwee daal dem na fa ne wax baax man quoi ah, yow ma yaakaar ne mu ngi tere. waaye waaye dimbali ko rek. xam naa ni moom e, bàyyi na booba léegi gis naa ni daal yàlla mu la ci musal te nen na ñaanal ci njureel gi yàlla dimbali la. Euh, tabaarakalla yàlla may ñu ci ay ay ay ay ci ay ndam. Euh, sama yaay kàddu seede yooyu mu seede mhm. sama yaay euh, jigéen la ju man góor mhm. euh, ci ñaqu boppam mhm. la tabaxal la tabaxal boppam kër tabaxaluma ko kër ci ñaqu boppam lay dépense joxuma ko dépense kenn yëbu ko ci ñu ko xam julo la di yëngu ci wàllu sàmm di jaay soow bu tab bu fi mu nii ginnaaw suba mu ngi war a dem dëkk bu sori uti nagi nagi nagi màggal ñee ca daral ba lay nekk nag itam xarit uti na ko ba jaay ba pare gàmmu sax man daf may yónnee fii ay nag ñu jaayal ko fii ci dëkk bi tabaski yi passé ku ma gis daral ba xar yi ma fa newoon moom moo ko yónnee foofu ci liggéey kon kooku du waxal doom loo xam ni hmm? Hmm? loo ko defal yaay xool li nga def ko rek waaye moom loolu mu wax da ciy xam lu bëree baree bëri xam lu bëree baree baree bëri am na yoo xam ne sax jamonoy yi xale la woon bi ñu jëmee nekkee gën a nekk tout tànk heureusement Ngunjaan yoo xam ni ay ndaw lañu woon mu doon ay mbir yu doon kii ci ci ñun mënuñu ko wax fii moom seetlu woon na ko léeg-léeg mu fàttali ma ko lii bettu ko euh, loolu mu wax noonu ni ku ñu gërëm la wax a wax a wax ci ñun lépp loolu dëgg la loolu dëgg la parce que sama yaay man aw lu dul moom aw ma sama yaay parce que bi ma avant may ferum soxla woon maak moom koros maa ngu njaay mi yar ma euh, booba léegi tabaarakallaahu bari na lu nekk ci man ci jom ci jàmbaar moo ko def ci man ndax bëggul moom mu bëggul góor gu ñàkk fayda bëggul góor gu ñàkk jom bëggul góor gu def yi fi doyee di mus koo bëgg yaay léegi laa ko ñeme rek mhm. dafa tàngoon mhm. léegi laa ko ñeme musuma ko woon ñeme ndax tàngaayam mhm. bëgg bëgg góor gu gu xam euh, li ngay doon ak fi nga bokk awma fayam euh, te loolu moo loolu lépp démb dëgg la euh, mënuma ci sax sori su ma ci soree xam naa ni sax comme dama daloon démb dina ma dalaat dama koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ay ko wér

boo ñu doon leer la bàyyi ji bi hmm. kan lay wax ni su ko nangam dalee su ko nangam dalee su ko nangam dalee su ko nangam dalee mën na ñëw seet ko kan la maanaam euh, say faj boo ñu nga xamante ni moom ngay faj. Euh, bari na de ay feebar yoo xam ni mañ hmm. ko faj. Hmm. mais mënuñoo faj lépp. waaye ma dégg su naan lépp la ñuy faj ba mu des man moom bari na am na lu ma bari na lu ma mënta faj waaye bari na lu ma mën a faj. man nag dama gëm alxuraan waaw feebar boo xam ni ndax wanu nazilu min alqurani ma huwa shifaan wa rahmatun lil muminin te ma farratna fi lkitaabi min cheyin alxuraan bàyyiwul dara te am na ay alxuraan yoo xam ni yenn yu nekk gis nga juróom-ñaari cëri doomu aadama yëpp yàlla wàcc na ay ay alxuraan yoo xam ne loolu lay faj mu tutu biir am na ay yu koy faj mu tutu bopp mu tutu tànk mu tutu lépp am na ay alxuraan ko faj bari na feebar yu mel noonu yëpp bu ko nit ñi ñëwee bu ñu ñëwee mhm. yàlla may nañu si dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy faj mhm. dañ koy faj mhm. euh, maa ngi la koy wax démb def naa ñu waxtaan bari ba ci ki ci mujj ñëwoon doomam ñëw na ci kuule bi xàmmewu ko damaa laaj kii nu mu tudd kenn ku fa ñëw xam naa la ñëw man la fi man la fi sama yaay ñëwoon àllar bi passé mais léegi sax mu ngi dox dégg ko kenn bi muy ñëw mënu woon a dox léegi léegi loolu la woon yooyu dañ koy faj incha allah Euh, te it nag yi xam ni xew-xew jamono la mhm. bëgg visa bëgg mhm. tukki mhm. Euh, bëgg bayre bëgg ubbeeku euh, bëgg soxna mu jafe bëgg bëgg boroom kër mu jafe déposer ay bëgg embauchement yooyu yëpp incha allah dañ ciy ñaan am nañ ci ay secret yu wér a wér a wér incha rabbuna allahu bu fekkoon am na laaj booy xaar ñu laaj la ko te amul wax ñu tel laaj la bu ko defee rek nga tontu si Euh, bu fekkee loolu amul itam nga def sa kàddu gu mujj ci émission bi bu dul sa kàddu gu mujj ci waaw li may wax daal di ko leeral mooy man euh, am naa métier. Mhm. damay liggéey. Mhm. di ci tedd. Mhm. Euh, lii nag du lu ma mën a bañ a def. ndax cosaan di buñ koy def. dinañ ci jiital ragal yàlla. Mhm. dinañ ci jiital bàyyi xel lu baree baree baree mhm. bari. na ñu ñuy jëflanteel. Mhm. sonn ci ñoom faj leen. ba pare lañ lay jox du am solo. du am solo. waaye eh, ni ñuy faje ak ni nit ñi ñëwee ci ñun. bu doon noonu. bu doon noonu la ñuy jëflanteeg ñoom ci jiital xaalis kon kenn waxatu ko waaye nag waaye nag nekk la am loo xam ni dañ jiital jaamu yàlla jaamu ci yàlla euh, loolu daal lañ doon eh, yàlla ñu yàlla doole musal eh, ci lépp luy lore la doon ñaan rek ma ñaanaat ko nag képp ko seetaan mm-hmm. euh, fas yéenaa gisante ak man mm-hmm. te xam ni boo ñëwee ba ci man sa aajo du faju yàlla boo agsi mm-hmm. maanaam boo agsi bu ma ko waxee mooy mm-hmm. yàlla boo jug sax bay ñëw mm-hmm. ko fomb parce que képp koo xam ne aajoom nat ta faju daal yàlla bu ñu xamante ba ngay ñëw ci man parce que weexal nag li ci dàq mooy ah bi aajo gi faju na wala ñaan loo nangu na tabaarakallah waaw di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ak liggéey bi si xaj maar euh, di la sant di la gërëm bu baax wax yàlla macha allah ليجي بأمنا صلاة يالنا يالله يوك ملاو أدنى بياب بياب بياب بياب أمبلوا أيك ليه بباري بعه هم نجاي توقرة يودي سيني إن شاء الله يالله منكوا يالله كيالله دف يا سنتو بعد قرب دي سنتين يب نجودون سيدام دي بالو حق يب ديان برام بسمان وتعالى مبولا نجودفعل نجعل يب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bu leen fàtte abonné ci seen seen YouTube Shamsu TV jant bi leeral àdduna te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran Samsung Huda Ahmad Samsung Samsung Samsung Huda TV Shamsu TV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 说不无价。